ahousubillah mina seytaan rajim bismillahi irrahmani irahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli yaa rabbi lisrah fi dawaamin sadri sarxam bihi akunu misla badri bokki jullit yi taalibey murit yi maa ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel ci bis bu màgg bi ñu dëgmal muy bisu màggalu Tuubaa di bis boo xam ne jullit yëpp a ko bokk rawatina képp ku bokk ci yoonu murit te mu nekkoon bis boo xam ne ni ko sëriñ bi waxe woon rek bu agsee na ko ci ñëpp di santale boroomam mu war a nekk loo xam ne nag kon kenn ku nekk war ngaa am noo koy waajale muy mboolem ñiy ñëw ci bis bi ak fu ñu mën a bawoo ci àdduna bi rawatina nag ñi nga xam ne ñoom lañu fiy fekk ñu di leen dalal ñooñu it am na waajtaay wu leen ci war kon nag li nga xam ne nun moo ci suñu taxawaay ci liggéeyu safinatul amaan nga xam ne lépp lu aju ci e, kaaraange ci wàllu dëkk bi ci wàllu saahir si nun lañu ko dénk ñu ciy def suñu kem kàttan ak bokki taalibe yi ñu ko àndal kon dafay jaadu lu mel nii bu jubusee ñu yëkkati ci ay kàddu ngir gën a leeral mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo dëgmal si dëkk bi fàttali leen rek yi nga xam ne mënuñu leen koo ñàkk fàttali te muy loo xam ne doxinu dëkk bi ci loolu la aju ndax ku ne xam ne ne dëkk bi eh, sëriñ bi li ko ci ñoroon lépp wax na ko tam wax ko ci biir xasiida matlabul fawsayn ndax xasiida boobu bi mu koy taalif booba dara nekkagul ci dëkk bi ci lu ñu mën a wane xanaa booba mbirum baatin bi moo fi nekk ak jëmmi boppam jeekuk cofeelam kon jaad woon na ni ma koy faral di waxee rek matlabul fawsayni waroon nañ koy traduiral nit ñi bu baax rawatina bu ñuy dëgmal si dëkk bi waroon nañ leen di gën a leeral li nga xam ne mooy bëggu sëriñ bi ci dëkk bi bañ bañ cee nattable dara loolu nag ci lañ leen bëgg a gën a fàttali tuuti rek ndax ak fàttali rek lay doon te loola mooy lépp loo xam ne euh, tàmbalee na ko ci liy tàggale nit ak sagom muy xeetu naan sàngara euh, ak lépp loo xam ne rek boisson alcoolisée la muy xeetu naan sàngara ak ya ko niru lu mel ne kii tuxum cigarette dañ ko fiy tere mm-hmm. euh, tux cigarette nag buñ ko waxee yóbbaale na kon yee ko féete kaw muy tux yàmba ak yeneen ak yeneen ak lépp luy tàggale nit ak sagoom loole dañ ko fi tere tere nañu fi itam képp ku fi jëf jëfi caaxaan loo xam ne lii looy nëbbu la mm-hmm. te lislaam ñaawlu ko mm-hmm. loole dañ ko fee tere tere nañu fi itam jigéen ñi ñuy sol col gu gàtt gi wala col gu yaraax nga xam ne seenu yaram day feeñ loolu it tere nañu ko fi gone yu góor yi nga xam ne it dañuy sol ay tubaayu tubaab yoo xam ne eh, dañu koy ruggi ba mu wàcc eh, yooyu dañ ko fi tere mm-hmm. nañ xam ne loolu mm, xawma li ñuy wax criss koros la xawma yooyu nañ xam ne ci li sa amaan di saytu la bokk dañ ko fi tere bu baax euh, xeetu watis yenn yi itam wat sa bopp watis woo xam ne di roy américains yi wala ñeneen yooyu itam ñaare kuñ ko fi gis bala ngaa tàggali ko gars yi danañ la watum nel ba mu set ñu door laa bàyyi nga jàll bu dee tubay jooju ma wax léegi it nag danañ lay dugal fi barab jox la tubay ju mag yoo xam ne tubay caaye lay doon nga sol ko nga jébbal leen jooja loolu yëpp daal ci yiñ fiy tere la euh, xeetu tëgg mi itam nga xam ne day am ñoo xam ne bu bis bi jubsee danañu fooraat seeni i ndënd gën koo jekkal bu ñëwee euh, làq ko ci benn quartier euh, def fa mbooloo di wane ne dañuy sikkar ak tëgg ñu xam ne sikkar si terewuñ ko kenn mm-hmm. ndax tudd turu yàlla la waaye nag tëgg bi sëñ bi da ko fiy tere jëmmi tëgg mi moom kuñ ko fi gis loola mooy indi jafe-jafe yooyu ndax tëgg lay doon moo xam ne buñ ko saytoo ginnaaw buñ teree tëgg mi ba noppi day ànd ak ki góor ak jigéen yuy wëndeelu di fecc yooyu yëpp daal dafa méngoowul ak dëkk bi mhm. te bokk na ci li ñuy tere euh, lépp loo xam ne xeetu carte la it ak anamu carte gu mu mën a doon muy carte xaalis loola it ci li ñu fiy tere la bokk ba ci ñi nga xam ne dañuy indi ay marchandises ni ko sëñ lu waxee léegi marchandises yoo xam ne eh, waree su koo jëfandikoo ci dëkk bi yow nga ñëw di ko fi jaay si day mel ne yaa may doole ña koy jëfandikoo ndax yaa leen ko indil ba ci seen wet loola it ñi ngi dànkaafu commerçant yi eh, ñu bañ ko fee indi eh, ba ci li gone yi def sax football yi dañ ko fiy tere kon ay jaay si fi ay balit kuñ ko ramaas ci bettuñu la na nga xam ne lu quantité ba bari bari yaa ko yóbbe sa bopp euh, loolu bokk na ci li ñu fi tere euh, ñi nga xam ne ñi it dañuy yor ay saak ràngoo ko di defaral jigéen ñi euh, ay ay dessin ci seeni loxo ak ak di leen defaral seeni weeg yu kenn xamul yooyu yëpp dañ ko fi tere ku ko ci gaa yi gis danañ danañ ko jàpp Euh, lépp loo xam ne lii daal lu ñuy lu ñuy tere la ci lislaam di ko ñaawlu euh, loole dañ ko fi tere bu wér wér boole kook nag jël matuwaay yu mat sëkk ndax euh, màggal gi bu kenn jàpp ne rek safinatul amaan lu dul màggal lay liggéey waaye màggal da cee raw ndax dañuy yokk effectif bi ba noppi wut ay groupe yoo xam ne bu ñuy xëyee ba ngoon dañuy wàcc ñee fanaan bu ci 24 sur 24 24 sur 24 ñuy liggéey. def nañ réunion yi ba def plan yëpp ba tër ko ni ñu ko organiser ba noppi nga xam ne euh, ñiy liggéey euh, ci fan yi jiitu màggal gi duñ la duñ bokk ak ñiy liggéey bisu màggal gi duñ bokk ak liggéey ba ci ëllëg sax ñi xëyit duñ bokk ak ñiy fanaan ñu fa nekkit noonu lañ koy liggéey ak ñi nga xam ne nag mobile la ñuy nekk di wër. ñooñu moom dañu leen di toppatool ay laissez-passer ñuy wër ñi ay moto la ñuy yor ñu yor oto ñuy wër te dañuy rombante yow te doo leen xam ndax duñ bëgg ñu sol ay tani nit ñi di leen xàmmee. moo tax danay ñëw ba sës ci nit te du xam ne kii membre Safinatul Amaan la. quartier yi it noonu lañ koy toppee te loolu lépp it dañ ci am ndimbalul police ak gendarmerie itam te gën nañoo renforcer suñ membre yi. ba ñoom ñëpp fi mu ne def nañ dernière réunion bi ci àjjuma bi weesu ba jël nañ matuwaay yi ci war yëpp euh, te nag ñu def attention ndax képp koo ci xam ne làqu nga ci kilifa yit kilifa ga du la ñaanal intervention mukk mm-hmm. ndax dafa bokk ci ñi war a jiitu ci tere gi moo tax genn kilifa goo xam ne taalibe jege na la ci ba yaakaar ne bu amee jafe-jafe safinatul amaan sëriñ ba dana ko ci ñaanal njekk mm-hmm. na xam ne sëriñ ba moo bokk moo jiitu ci ñi koy tere moo tax du sañ loola am na ci sëriñ soo xam ne eh, bu fekkoon xaalis bu ñuy laaj la ñu joxeel ko seen taalibe bi moo leen gënal yëkkati ca seen kàddu kon loolu nag na ko ñëpp bàyyi xel te lu ñuy tere moom sëb sëriñ war caa jiitu ci tere la ko boo juumee ba def ko it waroo ko ko yëgal ba boo ko yëgalee da nga ko yóbbe kersa yóbbe ko coono ndax euh, du la bëgg a gannaawal te du xam nu mu koy lijjante kon loolu it ñu bàyyi ko ci xel bu baax a baax a baax. parce bi rek sax dañ fi daan sisir ay ay marchandises dañ fi daan sisir ay marchandis yu bari ci yoo xam ne yu ñuy tere la bu dee yoo xam ne nag lu mel ne ki euh, ay comprimés yu primé la ak ay produits yu primé yu demee noonu yooyu moom service commerce. la ñuy jokkool bu boobaa waa Safinatul Amaan dañuy ànd ak service commerce bi leeral leen ko ñoom ñoo am sañ-sañu ñëw jël loola. Euh, bu dee loo xam ne lii service di seen moo ko war a def moom it dañ leen koy leeral ñu ñëw ànd kook ñoom am na ci ñoo xam ne ci ñoom sax daanañ sàkku ñu bëggee def benn liggéey yëgoo yëgoo ak ñoom waaye lu leen ci safinatul omaan woo itam ndax loolu laa leen wax dama leen lu ñu ci gis muy seen domaine ñu yëgal leen ko te jëlu leen ca matuwaay man danaa fexe nu ko seeni kilifa yëgee xam ne yéen li leen ci war defu leen ko waaw noonu la mbir mi demee ndax man li may liggéey moom ku ma ci bëgg gàllankoor danaa ko weesale sa jëmm ci fu mën a nekk bu dee am nga kilifa ma àggale ko ca euh, su fekkente ne it lu taalibe yi war a yëg la ma yëgal leen ko noonu rek la demee wane ni lee ko gàllankoor te ci kii la bawoo waaw moo tax euh, liggéey bi moom sellal googu rek mooy mooy li ci am solo moo mooy mooy ni ñu ko bëggee euh, lépp daal tegi ci yoon tañ xam ne daal lépp lu lislaam di bañ rek sëriñ bi bañ na ko ci dëkk bii te nag dëkk bi day dëkkub jàmbur damay wax ne ndegem ñi fi dëkk tabax fii kër yu seer sax kenn mënula la cee wan këyit woo xam ne danaa la sama kër gi ma fere cent million wala trois cent million mën naa la cee wan këyitu titre foncier woo xam ne bu ma ko yóbboon banque tey mu lebal ma cinq millions wala dix millions amul hmm. amul kenn ku fi mën a tabax këru trois cent millions wala lu ko jege mën a wan banque wenn këyit wu mu lay lebale cinq millions wala deux millions sax amul ndax mhm. amoo titre foncier mhm. yow ci biir titre foncier jàmbur nga liggéey kon peen nga fi am mhm. te peen boobu ni ko sëñ bi waxee pen boobu moom waxtu wu ne yoonu murit am na lu mu ko remboursé waaw moo tax nag loolu na ko nit ñi bàyyi xel kër jàmbur nag boo ñëwee tabax fa kër ñëw jot nga ànd ak sa njaboot ñëw respecteel mu fay tere nga bako te bul nangu ko fa def ba am gan goo xam ne danga naan kii eh, bokkul ci yoon wi waaye day sama xarit mënuma koo ñàkk nangul lii loola it ëllëg leneen lu ca am mm, sa kersa lay doon te yooyu nañ ko bàyyi xel bu baax te itam eh, taxawaay yi ci war yëpp daal daañu ko def foofu daanañ ci am ay jafe-jafe tuuti ci at yi weesu ndax eh, am na ci jigéen ñoo xam ne sax bu ñuy publicité kap yooyu ñuy sol dañ leen koy tere tuba tubaab yi ñuy sol sax dañ leen koy tere Euh, beneen bi ci des it mooy façon publicité bi bu fekkee dafa génne awra jigéen walla dara yooyu it dañ koy tere mm-hmm. panneau publicitaire yi euh, buñ ci masaan taf buñ ko waxee maire yi xam nga ñoom ñoom ñoom mm, société bi nga xam ne ñoo ko def mm-hmm. daaw rek amoon nañ ci jafe-jafe ba société boobu bi ñëwee ci man dañ maa wax ne man nun dañoo dem maire yi ñu facturer ñu ñu fay li ñu war a fay moo tax ñu sañ a def kii bi te ñàkk nañ ci xaalis bu bari ma ne leen nag loolu moom seen mbirum bopp la ndax nun ñëwu leen ci noonu. ba am autorisation bi ma contacté waa maire yi waa maire yi ñi yore responsabilité boobu dañ ne dañ ma wax ne ma ñoom bi ñëwee fi noonu dañ nu ne dem leen tàggu ji waa Safinatul Amaan ci problème boobu. waaye nun newuñ leen may nañ leen autorisation totale pour ngeen def ko. ñoom nag defoon nañ ne ñëw nañ ci yéen. gars yi it ne ñoom waxuñ leen loolu. waa mairie waxuñu leen loolu dañoo récupérer xaalis bi rek ma ne leen nag nun daal lijjanti leen loolu seen mbirum bopp waaw léegi daal liñ leen mën a may ci rox sa mooy euh, ni image bi demee bu ngeen ko mënee changé pour bañ a perte seen xaalis pour mu mën a dëppoog lu je lu dëppoog dëkk bi may nañ leen ko su fekkee bii image rek ngeen am nag dañ koy annulé loolu moom mënu ci dara. mënu ci dara. waaw kooku moom maire bu ci lekkeeb xaalis yi tus la ci mënut. danañ dajji tableau yi danañ ko xotti. lu mat a yëg la ku fiy ñëw di jaay si marchandise dem maire yi ñu facturé la na maire yi moom dulaan la li ngay publicité anam wala dara. waaw bu la yebalu ci sa financement ni na ñëw ba wan ñu sa image société boobu ko defoon dafa dellu ba dakaar mu liggéeyaat beneen maquette indil ñu ko ñu xool ko. ba d'accord ci même waa Sonatel def nañ ko mhm. boobu waa ji solee kii kii bi bàyyilaat bi def kaala gi mhm. maquette bi la ñuy njëkk a indil directeur yëpp fii lañ toog mhm. ah ba ma accepté ko def signature bi d'accord ak ñoom ci loolu ñu door a dem def parce que xam nañ ne bu buñ ko def ci lu dul risque la ci ñoom te dañuy ñàkk seen alal parce que maire yi lu fa dugg duggee naat ah boo jaaree fee daal ñoom li ñuy lijjanti mooy nga fay boo fayee ba noppi nag am na leneen lu lay xaw ba noppi nag te yàlla dogal ni mu war a demee demewu ni moom daanaka da ngay ñàkk sa alal rek ndax danañ yebal gars yi danañ waxtaan yow boo mënee dem sensé loolu ngir bañ bañ a sa alal nga sensé ko soo ko mënul nag ñu yebal gars yi balaa mat 24 heures ñu dindi yëpp. Safinatul Amaan daal lépp lu ëmb Touba ci la bokk dafa am ñoo xam ne nag tuubaa moom xam nga seen mbir dañuy bari lu ñuy wax te duñ ko gëstu. te mbir da koy gëstu. Mm-hmm. te nu it nekkuñ ci mbedd mi ku ñu romb ñu ne la kaay ñu wax la ni mu demee. boo bëggee am lu leer dangay ñëw boo fi noonu. Mm-hmm. noonu nag lañ amee fulla ak fayda ci képp ku ñu sosal luñ defut ñu teg la ci yoon. waaw dañ lay topp ba teg la ci yoon danga ñuy indil argument yu leer. Mm-hmm. wala li ci war ñu def ko. ndax am nga sañ-sañu ñëw ñaan ñu audience ñu recevoir la nga nga laaj ñu ñu tontu la. li nga war a xam bu laajee document ñu génneel la ko bu laajee archive ñu génneel la ko kon waroo fore ci mbedd ah ah waroo fore ci mbedd boo bëggee lu leer moom laa wax toujours taskati xabaar yi féete fi ne leen daal man comme may naa leen ubbil naa leen samay bunt lu leen nit mën a wax contacter leen wala ngeen ñëw ma wax leen li ci leer man awma lu ma ciy nëbb gis nga kii am lu muy nëbb mooy kii def ay tappale ki caaxaan te fii ku fi dëggal xam naa la ci dëkk bi ku fi dëggal xam naa la ku fi ne ciy tappale xam naa la te am na ci ñoo xam ne ay bagage laa leen ba denc ko ci ñoom kon loolu dafa mat di def attention moo tax bëgguma kuy fortaatoo ci mbedd safinatul amaan dafa sensible parce que seen lépp dafa leer waaye nag kenn du leen sosal luñ deful loo bëgg rek da ñëw ba mu leer boo demee bu ñu la nii nga publier ko nga publier ko. Mm. bu la nit joxee xabaar contacter laaj ndax lii wér na wala wérut. Mm-hmm. nun suñ liggéey communication moo ci ëpp doole comme ni ma la ko waxee. dëgg la dëgg la buñ sañoon quatre-vingt-dix pour cent yëpp communication la mais nag dañ koy teg ci yoon. Mm-hmm. koy teg ci yoon moo tax euh, lu mu ci mën a doon anam gu leer kenn ku ne it duñ la fekk sa secteur di la ci menacer wala ñuy def leneen mm-hmm. dañ la koy bàyyee luñ ci war a yokk ñu xalaat ci bokk ci discuté ba ba juboo ci loolu. waaye lu ci waay war a xam rek yaakaar naa bu ñu la ko leeralee danga nga ne waroon na ak na ma ko doon dégg parce que nag bul fàtte ne. waaw ñi muy ñi muy dëngoon. mooy mooy voilà ndax nit ki. sénégalais surtout ay intérêt da koo jege. te koo tuuse ay intérêt rek léegi mu def la noonu. boo gisee ma wax la léegi ne la man damaa bëgg a libre ci bañ a euh, dem ci kenn ne la budul ko nag yow nangam nangam. loolu la. parce que bëgguma ci def xaj ak seen. wala ma def leen moo tax amu ci kenn koo xam ne mën ngaa dem ba wane ne am na kilifa yu mag fii yoo xam ne tey day dem mbir day dem ba gaar seenub taalibe wala leneen. Euh, am na fii fan yii rek lu mel noonu xewoon na fi euh, benn kii boo xam ne dañ euh, dafa xewoon bi bi ma fa yablee di ko gëstu. ndax man du ma tëb tëb rek ne xatab ci mbir dañ koy gëstu ba am lu leer biñ tolloo ci temps wu gëstu ma ma ma aj lu loolu lépp kilifa ga yilifoon lool ci kilifa yoon wi la ku ku mag la. bi mu ko bi mu ko yëgee mais bi mu yëgee ne eh, mi ngi ci suñ sous contrôle ñu koy toppatoo daf ne pare naa ci nañ bàyyi bañ noppi ci. sëñ bi la noppi waaw waaw dane ci waxati nañ bàyyi bañ noppi ci ñoom. waaye du ma ci yëkkati sama kàddu. Oh, kooku nga lay jàppale. waaw kay mm-hmm. lool foofu laa ci nekk de kilifa goo ci xam ne kii jël nga décision ne man dangaa bëgg wañ sama loxo wala nga yëkkati sa baat ci loolu damay def conférence de presse parce que nag li am ba des itam ci yëf yi laa bokk te sama honneur duma ko fooyee waaw wallaahi bu boobaa danaa wax ne kilifa gii moo def nii moo def nii moo def nii ci ko ci principe yu yu leer ndax fu wér lay sukkandiku waaye safinatu amaan moom wala waay mën a wax nit dana ko waxal loo xam ne fa mu ko waxee ci bakkanam képp la ko teg wala mu yëg ne laal nañ ay intérêt. waaw dëgg la intérêt kese. Mhm. te intérêt dafa foor ci nit. waaw ndax fii mu ne lu bari lu ko tee dox rek jiital sa intérêt la. lu bari lu ko tee dox dëgg-dëgg jiital sa intérêt la. fii ne gis nga sëñ Touba li mu lebal nit ñi ci teraanga. def ko ci yoonam wii tey mm-hmm. bu fekkoon kenn ku ne boo xëyee sa kër mm-hmm. da ngay jéem a jëfal sëñ Touba dara lu tuuti tuuti door a jublu ci sa bopp mm-hmm. masalan nga ne tey daal naa xëy ci sëñ bi ba di li des ci jant bi ma àggale ko sama bopp kon na gën yi weesu na fi waaye 24 sur 24 sa problème bopp ngay nekk ba noppi nag di yëkkati ko sëñ bi di tudd sëñ bi di ko def noo xam ne doy na waar magasin ba fees na dell xam nga magasin bi chaque 6 mois la ñuy lakk bagage yi fi mu ne fees na teel ndënd yooyu ma lay wax fi ne lu mat téeméer ak nangam nga wax rajo yi am na rajo yi haut am na ay baaful yu ñu doon tëgge musique ay baal ci dëkk bii ginnaaw tabaski benn baal bu mag fii boore gaar bu mag baaful yaag amplificateur yeeg yëpp a nga fa yooyu moom seen borom duñ ci jotaat rajo yi yiñ ciy delloo muy rajo haut yi mooy yi nga xam ne nit da koo luye woon mm-hmm. yóbbu ko fenn di fa sikkar boole ko kum tëgg ak yooyu danañ ko confisquer buñ ko téyee buñ buñ xamee borom ni kii da ko luye woon rek moom yoonam néew ci ñu négocier ak borom delloo ko ay rajo. amul laaj dara. léeg-léeg ñu laaj leen ci amande nag. Euh, amande boo xam ne mooy bi gars yi doon def. Mm-hmm. léeg-léeg ñu laaj leen ci amande boo def delloo leen rajo yi. bu dee xeetu rajo yoo xam ne it nag borom dafa dëgëroon bopp ci li muy def ba noppi di di sonal dëkkandoo yi te ñu avertise ko mu të yooyu rajo borom duutu ca jotaat fi ne nangu nañ ci lim bu takku mm-hmm. foofu it plan bi ma jël mooy seet jàkka yi ni ci dëkk bi te amuñuy rajo yuñ jullee yuñ nodde ñu baaxe leen ko duñ leen ci laaj ñaari dërëm waaw boo kooku après màggal lañ koy réaliser maanaa mm-hmm. teg loxo gi du gaaw manaa mm-hmm. du gaaw ndax nit ki dafa am àq fokk nga jox ko àqam ndax nit njuum te da koo yomb te ku dul juum amul. nit ki dangay waxtaan ak moom xamal ko ne ko lii nga def ndax yaa ko tey ndax nangam nangam léegi la sax nga gis koo xam danaan la xawma ma woon fekk na ba mu ko xamee yàgg na. day bëgg-bëggam. waaye danañ la bind leetar avertissement lu man ñetti yoon waaw. dañ def benn ñaar ba ñett ba yëg ne yow lii kat da ngaa da jël sa matuwaay ne mënoo koo ba ci lañ lay door a tege waaye du ñëw rek ne la ay ca nangam la déedéet duñ ko def waaw duñ ko def léeg-léeg am na ci ñoo xam ne kër yañ koy defee moomuñu ko kooku boo ko nangoo lor borom ah nit dana ne ba Italie tabax këram ba pare luye ko nit kooku ñëw indi fay ganam ak lu nekk def la ko neex kee lu ca yoonam yéegu ko la def nun fexe ba jot kooku téléphone ne ko fexe la génne sa loyer bi wala conséquence bu ci am ci sa kaw lay dal fexeel ba génne kooku kër gi te seet keneen kooku luye loolu moom def nañ ko fi ba tàyyi bu dee koo xam ne kii dafa appelé woon këram rek wax dëgg yàlla duñ ko cati dara dañ ko daan fexeel ba ñii nga fi luye woon wala ñi nga ko abaloon génne leen kër gi ndax ñi ngi fiy def nangam ak nangam fii euh, at yi passé ay deux mille mille quinze génne nañ fi këran 42 personnes ay jigéen yu doon jaay seen bopp te ñooñu tey kër ne newoon boo ko doon nangu adduna tukki parce que ñii dañoo luye ñii àbb mais dañuy fexe ba borom kër ga ñëw jëlaat këram. Euh, jigéen ñooñu 42 personnes yi ñenn ñi Kaolack lañ jóge woon ñenn ñi rofis dañ leen a poursuivre ba génne leen dëkk bi parce que bi ñu leen njëkkee jële fii fii ci bon boori banque CBAO bi ci Xaayra foofu lañ njëkk a luye biñ leen dàqee ñu dem booru Daaru Alimul Xabir Ndaam luyewaat fa ñu tappe leen fa. <laughs> bi yëf yi xawee metti ci ñoom nag ak roñu bi ñu nekkoon nañ far dellu. topp nañ leen ba yëg ne dellu nañ fañ jóge woon pourtant loolu ñu bari yëguñu ko dégg nga uh-huh. euh, mbëri làmb yi fi sosoon ay écrit ah. ñu bari yëguñu ko trois mois lañ fi sos soixante-dix écrit juróom waaw te jàpp nañ leen dañoo yabal benn élément boo xam ne am na vingt cinq suur ci seen biir nekk promoteur comme ñoom ba jël renseignement yëpp biñ leen di jàpp keroog ñoo élément boobu lañ boole jàpp hmm? nga xam ne biñ tolloo ci def procès verbal bi pour envo euh, jàllale leen Jurbel ci la ñu door a rocc suñu element boobu. wan leen ne waaw dañ ko doon liggéeyloo. loolu ca lañ ca liggéey mel noonu lañuy def nga xam ne ci la loolu xew na fi ci trois mois yi ci la gaa yi taxawaloon soixante-dix écrits yooyu. <laughs> dañu bari làmb amatul waaw fuñ ko fi dégg rek dal ci seen kaw yooyu yëpp fi mu ne am na fi boo xam ne bu ma ci gën a yéeme nga xam ne sëñ Touba daal kenn xamul mbiram euh, dama naan gars yi léeg-léeg ñoom ñu gis loo xam ne sax ci terrain bi da leen di wóor ne lii màgga ci dugal loxoom. borom a leen ko woon waaw. Mhm. imagineel ñaar ñu dëkk ci kër. signalé seen bopp woo Safinatul Amaan. signalé seen bopp yàgg fa. kii daf ne góor jigéen la kii ne day jaay boppam ñoom ñaar ñoo bokk genn kër te fañ nekk roqee na roqee goo xam ne Safinatu Amaan mënoon na ko bañ a baa du gaaw mm-hmm. ndekete ñoom jàppante nañ seeni kàddu juyoo ndaw si jël téléphone am woo benn élément Safinatul Amaan signalé ko gars yi taal oto bi ñëw waa ji ne leen bi mu leen ne kii nangam la rek borom ñaari tur la loolu la leen ndaw si wax mm-hmm. waa ji ne ko man weddiwuma ne loolu laa doon ndakaaru laa jóge ñëw fi waaye la ma fa jëkkoo woon defaguma ko Touba waaye nag yow mii ma dalalit doo ma dugal bàyyi ma ci biti bàyyi ma ne ci biti ndax yow itam nangam ak nangam nga fiy liggéey nun ñaar a bokk kër gi ñoom ñaar lañ boore manote leen yóbbu xoolal loolu nga xam ne ñoom ñoom kon Mm, buñ leen wanewul woon mën nañ leen a yéex a gis. dëgg ndax ñoo bokk genn kër. Mm-hmm. te ñoom ndaw si moo woote. Mm-hmm. sëñ bi ci dugub. waaw mm-hmm. moo woote. toujours nag yooyu day am da nga gis koo xam ne kii sax day mere nit euh, bëgg def règlement de compte far bu ñëwee yëf yi ca kawam lay dal ndax buñ ko toppee ba ci biir. buñ jàppee kayit duñ ko fa bàyyi. <laughs> waaw <laughs> yooyu nag moo moo bari ci dëkk bi. ak yeneen ak yeneen nag ñu bari dañoo defe na sax bu ñu waxee ñu naan safinatul amaan dañuy futti nit ñi ci mbedd yi dañuy def ni loolu ku koy def lislaam santaanewul loolu jigéen dafa am cir mm-hmm. ah, dafa am nus ko war a wormaale mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. bu njëkk ba ñuy door a tàmbali sax euh, lañ daan def mooy dañ daan ñawlu ay camisole yu mag fop ay tiis yi ñawlu ko ay mbubba ki séri ki grand booba koo ci xam ne woo nañ la gis nga sol col gu yaraax wala gu gàtt dañuy fexe ba dugal la ci kër kër googu ay jigéen fay nekk ne la nga dem suturlu summi li nga soloon teg fee te sol ci lii loola la tax ñu ba ko dañoo dem ba am na ci ñooñ bu ñu leen joxee yére yooyu leen safinut amaan di jox duñ ko nangoo sol hmm. bu ko defee nag bëgg a génn ak yaramu kese oh. pour ku leen gis defe ne ci mbedd lañ leen summee <laughs> léegi nag ma ne leen bàyyi leen stratégie boobu léegi nañ def nenn hmm. na ngeen ko yóbbu gendarmerie wala police. Mhm. wala poste police bu leen gën a jege. Mhm. na leen jox numéro ay waajuram ngeen woote fa. Mhm. te ku ngeen jot ca kër ga. nee leen ko na àndaale ay yére yiw. fekk leen barab sàngam. nga xam ne parent boobu bu ñëwee yére yi mu indi. xale bi day dugg fi barab summi ku wàcc fa loola sol loola. ngeen bàyyi ko mu dem waaw ñu bàyyi ko mu dem. nga xam ne lii ci lañ mujj ndax daa mujj yére yooyu leen gaa yi jox bu ñu leen ko joxee luñ ko nangoo sol ba pare nag bëgg a génn ak yaramu kese it wane wane ne dañ maa futti ñu ne leen loolu moom du fi ame léegi nag bàyyi leen kon nu leen di indi li yére yu jóge ci seeni kër mm-hmm. ndax xanaa lu bon bon kenn ku ne am nga fa mbu mu baax wala sa mbokk am ko fa mm-hmm. léegi nag bu ñu wootee ñu indi leen yére yu baax mm-hmm. bu ñu leen ko indilee nag ñu sol ko bàyyi leen fa yu bon yi yu bon yi moom benn yoon bu ñuy lakk te ëppul ñetti junniy marsoog nangam amut ñetti junni da koy ëpp ña ngi koy lakk ca gaar bu mag dañuy invité ñëpp it ku fa masa am mbubb muñ téye sax boo ñëwee may nañ la nga vérifié ba xam ne lii sa mbuumaa te ñu koy lakk <laughs> sapeur pompier taxaw ñu fob essence bi sotti ci bu boobaa ségarees dañ koy ber ne yàmbaa ji ñu ber ko ne pon mi ne lu ci ne ay bool lañ koy def image yaa ngi fi. Mm-hmm. yëpp am nañ ko waaye mbubb yi toujours toujours bi gën a néew moom mille quelques pièces da koy mat mm-hmm. amul benn yoon buñ mas a lakkit ba estimé wuñ ko prix bi gën a feebal te rombul vingt millions amut amul waaw yenn saa yi dana dem sax ba trente million te niñ koy estimé mooy lu war a jar mille francs ñu calcule ko six cent francs noonu lañ koy def pour wàññi prix bi waaye loo yaakaar ne duñu ko teg duñu ko kii rek foofu nga koy gis wala nga gisoon image yi waaw lépp lépp lépp nga foofu waaw li nga xam ne nag jumtukaay la yoo xam ne moom kenn waru koo lakk ndax doomu aadama mën na koo jariñoo loola moom nun duñ ko jaay ñu naan xaalis bi dañ koo delloo ci suñ biir waaye dañuy seet feneen fu mën a duggee comme li ma la wax ci rajo yi léegi rajo yi xalaat ci jël mooy seet jàkka yi nga xam ne tabax nañ leen ay nit fa julli ci amuñuy rajo soxla ko ñu seet jox leen ko xeet yu mel noonu waaye xeetu ndënd yeeg yooyu nag moom lakk rek lañ ci xam waaw dañuy dañuy wane yëpp lakk ko xeetu esthétique yi ñu wax mannequin yi téer yi yor yooyu yëpp ci la bokk ak jumtukaay yoo xam ne yi sax danga naan lii ba ci ba ci euh, band yi xeej yi ñuy yor ak ak ak saaru jaas yooyu ñuy roppi ak fetali tëgg yi yooyu yëpp ay lim lay doon da ngeen koy bu baax a baax am nañ groupe boo xam ne armas lañ def yooyu ñoo koy liggéey ñoom xanaa xamoo ne euh, euh, jàppukaay jumaa ji fare kër sëñ Mbàkke Madina bi fi gars yi njëkkee dàq loolu 2013 2014 la woon ñu dàqee band yi gaar bu mag bi ñu leen fa dàqee dañoo daw di fanaani ci jàppukaay yooyu fa la leen gars yi fekk trois heures na matin fa lañ nangoon arme bu bari boobu. waaw fa lañ ko nangoon léegi loolu lépp ci seen liggéey la boo gisee ma ne am na loo xam ne diisu ko may ay bandeeg yooyu gaar bu mag gis nga marché ba fa newoon. waaw ñu tabax ko mu ne sàng demul dikkul. ña fa dëkk amatuñ jàmm. à partir de 19 heures ku fa génn ñu agressé la. nee naa leen marché bi dañ ko war a toj wala ñu jox ko ñeneen ñu di fee jaay. dëgg la wala yii ñuy toxale ci mbedd yëpp ñu rassembler leen foofu yóbbu leen fa. ñu lëggee ñu ne fa. dëgg la ah? lu luy ndey nag nga bàyyi leen ñoom ñu wuti nag te saa yu leen fekkee foofu ramasse leen bu buñ toogaatee une semaine dellusiwaat ku fa amoom xar walla bu béy danañ koy génnee ci sa kër ray ko di ko lakk nga di leen xool te doo leen mënal dara bu fa xale bu jigéen jaaree ñu dal ci kaw. yooyu nag yi fi mat a liggéey dafa bari ñu war koo teg défense te wàññi yenn yi. Mhm. waaw yenn publicité yu ëpp yi. Mhm. sëñ Touba soxlawul propagande bu metti boobu. déedéet soxlawu ko. pare na moom waaw waaw li muy def def na ko ànd koog yàlla ba yàlla defal ko ci lim ko defal soxlaatul benn propagande. li ci des mooy seetalal ko ñax yi buddil ko ko. Mhm. ñax yi sax ak ki ñu buddil ko ko baleel ko ko. waaye waaye koo xam ne nag wut morso ñëw fomp ba mu set rek ci moom nga tollool. yow taqal waru la. lii fi sëñ bi def moom lu la waay mën a wax yokk ci lenn yombut. déedéet mënees ko ngoog kon nag léegi. ndegam yow jariñu ci dong nga man fexeel ba lim fi bàyyi bum tilim. Mhm. waaw mhm. loolu daal moo ci suñu gis-gis. waaye ñu ngi leen di santaat bu baax a baax ndax bu ngeen gisee nun suñu kàddu du bari ci rajo yeeg télévision yi. Mhm. ñaaree du faral di jege. Euh, ni ma la ko junjee sànq rek. communication lu baax la ci jamono ji. ndax fi la jamono toll te yu bari moo ko mën a jokkale waaye nag bu jegee ba mu ëpp mm, mm-hmm. dafay mel ne da ngay propagande wala da ngay publicité mm-hmm. wala yooyu te du caageenu liggéey yëpp ngay wax di ko di ko waxee noonu mm-hmm. loolu rek la waaye du leneen rawatina nun suñu liggéey xam nañ ne loolu lu ci baax la ndax day tax ñiy wutu lay duutuñ ko am d'accord nañ nag accepté nañ bu wér ne ñi ànd ak nun ci xol ci yu mel day jafe ndax ni ma la ko waxee léegi rek intérêt nit ki dafa doy waar te koo tuuse intérêt te man nag yàlla dama ko cee xas jaayante ba liggéey bi ma yemale ci ki ci bég ci man ak ki ma ci noonu dëgg la ndax euh, ndax li Sëriñ Tuubaa waxoon rek an nafhu wa durru min arrahmaani lay zaminal bidaani wa sudaani damaa yaakaar ne man li may jariñ ak li may lor ci yàlla rek la mën a bawoo dëgg la waaw ndax dépasé naa nag di ko séntu ci doomu aadama yàlla it dimbale na ma ci foofu laay fas yéene sax ba faw moo tax euh, bu ma ci nit di encouragé ki kii sax dafa may xaw a seene tuuti ndax du ma yëg ne man def naa dara waaye ku ma ci noonu it damay jàpp ne wala nga mere ma ci damay jàpp ne yaa ngi may dimbali ndax nga ma gën a am force pour mën a def sama liggéey waaw foofu daal laa ci toll maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla barkeelal leen liggéey bu baax a baax a Euh, te yàlla àggalañ ci bis beeg jàmm te lépp lu ñu ci def rek mu dëppoo ngërëmul sëriñ Touba. wasalaamaaleykum wa rahmatullah